wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisani wahlulan minhu luqad wajalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñuy dikkaat ak yéen rek di àndaat ak yéen ci jataay yi ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di ànd ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tuddee Munawwirus Sudur wala ñu man koo tudde it tanwiru sudur ñu àndoon ci ak ci ay bis bi weesu ba jotoon ceen ànd ak yéen lu tolloon ci ñaari bind waaye suñu bindub tey ñu ko bëgg a sofee fi nga xam ne moom lañ taxawoon ci bind bi weesu rek te ñu taxawoon ci bind boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi doon leeral ci téere bi ne adduna day ab kaso la ñeel jullit bi waaye it ajjana la ñeel ki nga xam ne mooy aji wedd yàlla bi loolu misaaloon nañ li tax sëriñ bi eh, wax ko waaye delloo ko ci xadiis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ndax ki nga xam ne mooy doomu aadama bi di ab julit xéewal yam war a fekk ëllëg yi ko suñu borom subhanahu wa taala war a fayee bu ko euh, gam-gamle ak li nga xam ne moom lay dund ci àdduna lu mu bari bari doon ko ay xéewal bu xelaate xewal yooyu fàttaliku ko rek day mel ni xéewal yi du doon dara ci moom waaye litax mu doon kasob jullit ba tey jamu yàlla yi nga xam ne moom la nit ki di def ak santaane yi nga xam ne moom la nit ki di def day doon loo xam ne day diis ci bakkan lool yi la mën a gàllankoor ba doo ko mën a def bari lool taxaw ci sa kanam moo tax yooye nag faw jànkonte ga ngay jànkonte ak moom ngir mën a topp ndigali yàlla yi ndigalam yi nga xam ne moom la digal loola mooy tax euh, mu mel ni ab kaso ci yow mel ni lu xat lool ci yow kon foofu lañu taxawoon ci suñu bind bu mujj suñu bindu tey di continuer rek ba tey sëriñ bi di wax ne haza jàppal lii wa xayrul ilmi ngën gi xam-xam yaa zawil uquli yéen worom xel yi ilmun mooy xam-xam boo xam ne muxarribun dana jegele liman ñeel boroom minhu ca ka nga xam ne na nuqulu toxal ga fala la jóge mooy suñu borom subhanahu wa ne nee na na nga yëg ne xam-xam day xam-xam bi ci gën mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jegeñal aji xam ko boromam bi subhanahu wa taala waaye mooy xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a gën a wéetal yàlla mooy xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki bàyyi xel boroomam bi subhanahu wa taala te loola dara ëpp ca xam-xamu tawxiid solo waaye dara ëpp ca xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki kennal suñu boroom def ko muy jënn jëmm ba ko bokkaale ak dara euh, loo xam-xam boobu mooy xam-xam bi nga xam ne moo gën euh, ci xam-xam yi ndax eh, li nga xam ne mooy xam-xam bi lay jegele yàlla mooy lay tax nga mën a wéetal sa borom waaye mooy tax nga xam ne suñu borom subhanahu wa kenn la te loola mooy xam-xamu tawxid ndax suñu borom bi subhanahu wa taala dafa doon jënn jëmm joo xam ne bëggut ku ko bokkaale ak dara ndax bu ñu xoolee mi ngi ñuy wax ci alquran ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana na ngeen jaamu seen borom bi subhanahu wa te bu leen ko bokkaale ak dara te ngeen rafetal jëm ci seen ñaari wayjur kon loolu moo ñuy won ne jaamu gi ñu war a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ci lenn rek la war a tegee ci ak sellal la war a tege waaye ci tawxiid muy wéetal suñu borom bi subhanahu wa taala la war a tege waaye ci bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa ci loolu la xam-xam boobu war a tege te it muy xam-xam boo xam ne nit ki bala moo jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ci euh, bu ko wéetalee ba pare bala mu koo jaamu war naa xam naka la koy jaamoo kon loole itam ab xam-xam la boo xam ne bu ama am solo la boo xam ne day tax mu jege suñu borom xam nan la ko war a jaamoo itam daf ko war a xam ndax euh, euh, ci xadisul xudsi yonente bi ma ngi koy wax ne taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen ma xam bala ngeen maa jaamu ndax su ngeen ma xamut doo ngeen ma mën a jaamu kon xam gi suñu borom bi foofu farata lay doon waaye xam ni nga xam ne noonu lañ war a jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala tamit farata lay doon te xam gi ñu war xam suñu borom bi subhanahu Euh, mënuta am lu dut ci am njàng mënuta am lu dut ci gëstu ba xam li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bëgg ñu def ko ñu taxaw ca waaye xam li nga xam ne moom la ñuy moytandikuloo ñu bàyyi ko te xam-xam bi nga xam ne mooy taxit nit ki mën a euh, jaamu suñu borom bi subhanahu wa te teg ko ci xam-xam boobu mooy xam-xamu alfiqhu ndax ci xadis yonente bi mi ngi wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala namm na ci moom aw yiw daf koy dégguloo li nga xam ne mooy diine ndax diine su ko nit ki déggee ci la ak jaamu yàllaam di mën a ñoŋe waaye ci lay xam naka lay jëflante ak uh, ndigali suñu borom yi waaye naka lay def ba uh, moytandiku terey suñu borom bi subhanahu wa taala kon xam-xam bi gën ci xam-xam yi kon mooy xam-xam bi jegaloo nit ki suñu borom bi subhanahu wa taala te loolo taxoon sëriñ bi di wax ci euh, masalik ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi xam-xam bi gën gën ci xam-xam yi day mooy xam-xamu tawxid bi nga xam ne mooy jàngal nit ki boroomam waaye xam-xamu tawxid bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a wéetal boromam bi subhanahu wa taala kon xam-xam boobu mooy xaw xam taw tawxid mu tekke ne wa baadahu tafsiru lil qur'ani summa al hadisu xaalahu daymaani nee na ginnaaw loolu day euh, xam-xamu tafsir moo ca tege waaye xam-xamu hadis bi nga xam ne mooy aju ci li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëf wala mu wax ko wala euh, mu digle ko yooya mooy xam-xam ba nga xam ne moo ca tege ne na loolu al imam ad-Daymaani moom moo ko wax mu tekke it ne wa baadu haza wa baadu zawajayni al mutafaqihin bi xayri may ni ginnaaw ñaar yooyu muy xam-xamu tafsir ak tam xam-xamu hadis xam-xamu fiqh moo ca tege te xam-xamu fiqh boobee nag mbokk yi mooy tax nit ki xam naka la war a mën a jaamoo suñu borom bi subhanahu wa kon xam-xam yooyu dafa doon xam-xam yu ama am solo yoo xam ne Euh, nit ki war na koo xam ndax mooy tax mu mën a wéetal suñu borom subhanahu wa taala di xam-xamu tawxid waaye xam-xamu fiq bi mooy li nga xam ne mooy tax nit ki xam naka la war a jaamoo suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu borom lu mu bëgg bëgg jamu ko dafa bëgg buñ koy jaamu ñu teg ko ci xam-xam waaye buñ koy jaamu itam ñu teg ko ci ak sellal te yooyu yëpp dara mënu ci am te euh, njàng mu wér a wér a wér amut. sëriñ bi di wooyu wax ne kalaq di li ki mel ne xam-xamu pas-pas wal fiqhi ak xam-xamu fiqh wakka tasawufi wakka tasawufi ak xam-xamu tasawuf wa kulli ilmin euh, bépp xam-xam boo xam ne ya fii dana dikkee bi manafia ci ay njariñ mooy wa kullu euh, bépp xam boo xam ne ya dana dikkee bi manafia ci ay njariñ maanaam dana andil nit ki ay njariñ kon Euh, sëriñ bi ne na xam-xam bi gën ci xam-xam yi kon mooy xam-xam bi lay jigeel euh, suñu borom bi subhaanahu wa taala daal di ñu cay limal xam-xam yooyu nag ne mi ngi mel ni xam-xamu pas-pas xam-xamu paska pas-pas mooy xam-xamu boobu nga xam ne moom lañ doon wax léegi nga xam ne euh, mooy xamal nit ki jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala ci ak matam waaye melokaani suñu borom bi subhaanahu wa taala yi nga xam ne moom la melowoo te ko ak kenn waaye màgg gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala màgg nit ki war koo xam war koo gëm waaye war koo uh, sellal bu baax a baax a baax te loolu nee na xam-xamu tawhid rek ko moo ko mën a may uh, doomu aadama bi lu ki ni uh, al al aqida kon pas-pas nit ki su ko bëggee am dëgg-dëgg mu jàng pas-pas bu wér faaw mu jàng li nga xam ne mooy xam-xamu tawhid xam naka la mën a war a wéetale suñu borom subhanahu wa taala waaye li nga xam ne mooy faraidul ayn muy farataay jëmm yi nga xam ne nit ki mënu koo def euh, mu wër lu du dog foo teg ci xam-xam euh, yooyu itam moo moo ca tege te loola xam-xam bi koy jàngale mooy xam-xamu al ndax nit ki tey jii bu fekkoon ne dafa bëgg a julli faaw xam langa xam ne moo ca aju ci ay farata xam la ca aju ci ay sunna xam la aju ci ay euh, mustahabaat muy lu ñu xam la ca aju ci ay makruhaat muy lu ñu sip yañ ca sip xam yitam la nga xam ne moo ca aju ci ay e, mufsidaat ya nga xam ne moo koy yàq yooyu yëpp fawwu nit ki xam ko te ci ponk boo dem ci ponk lislaam yi fawu tamit nit ki xam e, la nga xam ne moo cay attey lislaam ya e, la ca war ak lu ñu ca sopp ak loo xam ne dañ ko caa sip ak lu ñu ca araamal yooyu yëpp nit ki faw mu xam ko te nit ki bala bala moo xam loolu faw mu gëstu bu baax li nga xam ne mooy xam-xamu fiqh te it xam-xamu fiqh nit ki mënu ko am lu dul ne dafa euh, jàng wala mu takkoo ak ñi nga xam ne dañoo jàng euh, ngir ñu koy euh, toppantaral kon loole tamit lu ama am solo la mooy xam-xamu fiqh boobu ñu war koo bàyyi xel yitam ndax sëriñ bi mi ngi wax ci yeneen téere di ko toxale ci mbindum yenn mag di wax ne kuy jaamu yàlla sax te xamoo ate ya nga xam ne moo ci am euh, bu boobaa jaamu googa des ko nungu mu mel ni al imaamul Awfi loolu doon na ko saxal sëriñ bi doon na ko bind ci euh, benn ci téeréem yi nga xam ne mooy jàngale fànn gi kon xam-xamu euh, fiqh itam lu ama am solo la lu nit ki war a bàyyi xel la waaye lu nit ki war a yittewoo la waaye itam sëriñ bi di wax ne xam-xamu tasawuf yi itam xam-xam bu ama am solo la te mën nañoo wax ne mooy xam-xamu al ihsaan ndax euh, diine ñetti yi moo lal mooy al iman wal islam wal ihsaan ñett yi lal diine te kon ñett yooyu benn bu ci ne euh, benn ci ñett yi moo koy jàngale ndax bu dee al iman di ngëm yàlla gu mat sëkk sëkk faw nit ki dana am aqida ju wér a wér doo koo mën a am waaye al islam bala ko nit kee mën a am dëgg-dëgg faw mu uh, xam li nga xam ne mooy attey lislaam yi waaye it al ko nit mën a am faw mu xam li nga xam ne moo aju ci xam-xamu tasawuf te xam-xamu tasawuf nag jàngalewul dara mbokk yi lu dul ak sellal waaye bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom moo wax ne bu ngeen may jaamu nu ngeen ma jaamu ci ak sellal waabudullaha muxlisina lahu diin su ngeen di jaamu suñu borom na ngeen ko jaamu ci ak sellal kon xam-xamu boobu mooy xam bi nga xam ne mooy jàngal nit ki ak sellal kon ñetti xam yooyu dañuy jàpp ne mooy fondement bi nga xam ne mooy fondement bu wér boo xam ne jullit bi war na koo bàyyi xel bu baax a baax waaye jullit bi war na cee gëstu euh, kem kàttanam ba am lu mu ci mën a téelu dëgër loo xam ne dina ko dimbali ngir mu mën a sàmm li nga xam ne mooy diineem sëriñ bi nag ne ginnaaw bu jullit bi sako xam-xam yooyu ba pare muy xam-xamu aqida ak xam-xamu fiqh ak xam-xamu tasawuf beneen xam-xam boo xam ne mën na ko jariñ moo xam ci wàllu addunaam la koy jariñ wala mën na ko jariñ ëllëg yowmal xiyaam nena na xam-xam yooyu yëpp boo faak boo yee ba pare nga xam ne ay euh, mën nañ koo tuddee farataay jëmm yoo xam ne nit ki daf koo war a xam bu paree nag beneen xam-xam bu mu ca mën a teg boo xam ne mën na koo jariñ mu fexey euh, mu fexey euh, gëstu ko waaye fexey fexey xam xam lu ko bu baax a baax a baax a baax kon euh, sëriñ bi na na xam-xamu fiq boobu nag mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jëm mi nit ki mooy tax nit ki jëf yi muy def muy doon jëf yoo xam ne jëf yu yu yu baax lañ koy mën a àttee ci kaw waaye nag euh, li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf mooy xam-xam bi nga xam ne euh, mooy yéwénal mbir yi ci biir maanaam xam-xamu baatin la moo tax muy wax ci masalik ne al ilmu inda al ulamai yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim nee na xam de day ci borom xam-xam yi mi ngi séddalikoo ci ñaari xaaj am na lu ñuy tudde ilmu zahir am na lu ñuy tudde ilmul batin mu ne zahiruhu lmuslihu lil amali wal batinu lmuslihu lil ahwali mu ne zahir sa day xam-xamu zahir ba mooy xam-xam bi nga xam ne moom mooy yéwénal jëfi jaam bi mooy yéwénal jëf jëf yi nga xam ne moom la jaam bi di jëf waaye xam-xamu baatin ba mooy li nga xam ne mooy yéwénal euh, jëmmi nit ki ci boppam jëmmi nit ki ci boppam te jëmmi nit ki dara mënu ko yéwénal lu dul ak sellal moo tax mu ne fa awalun bismi tafaquhin doi wa saani anhum bi tasawufin woi nee na euh, xam-xam bi nga xam ne mooy yéwénal jëfi nit ki nee na moom la ñuy wooye xam-xamu tafaquh mooy xam-xamu fiq xam-xam bi nga xam ne na mooy yéwénal jëmmi nit ki ci boppam nee na xam-xam boobu moom la ñuy wooye xam-xamu tasawuf mu tekkee it ne summa taqdimul fatal fiqha ala tasawufin wujubuhu xadil jala bokk na ci itam euh, euh, jiital euh, nit ki xam-xamu fiqh dafa doon loo xam ne dafa war bala moo gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf kon nit ki bala moo jëf wala bala moo def li nga xam ne mooy xam-xamu dafa war a jiital li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf kon xam-xamu mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jiitu li nga xam ne mooy xam-xamu al fiqh nit ki kon mënta euh, am li nga xam ne mooy xam-xamu euh, warta gëstu wala warta jiima sàkku li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf li fekk amut li nga xam ne mooy xam-xamu euh, al fiqh kon jiital fiqh dafa war ci li nga xam ne mooy jaan bi bala moo gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf mu tekkee itam ne faman ila ixlaalil awalin tama halaka fi dunia bi xukmil ulama ne na képp koo xam ne nag euh, maanaam neenal nga xam-xam bu njëkk boobu te mooy xam-xamu tasawuf ne na na nga xam ne day lila la boroom xam-xam yi attel ne na ñoom day atti na ne yow ku koy alku nga fii ci àdduna maanaam boroom alkande ngay doon ndax lan ndax di jaamu yàlla te jaamu yàlla googu ngay jaamu yàlla doo ko teg ci Euh, benn xam-xam doo ko teg ci benn atte maanaam boo defee ak jaamu yàlla ba pare buñ la laajan lu ca am sax doo ko mën a euh, doo ko mën a leeral ngir lan ngir lay tax nga war koo mën a leeral euh, xamoo ko ndax mooy xam-xamu fiqh kon loolu lu ama am solo la lu ñu war a bàyyi xel kon nit ki bala moo jiima sóobu yoonu tasawuf war naa jiital li nga xam ne mooy xam-xamu fiqh ba pare doog a euh, euh, gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu at-tasawuf muy tekkee itam ne waman yakun bi saani za ixlaali yaxliku gadan bi xukmi zil jalaali nee na képp koo xam ne nag da ngaa jiital maanaam danga jiital ba nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf te nga waroon a gëstu li nga xam ne moo aju ci wàllu fiqh ba pare doog a gëstu xam-xamu tasawuf booba nee nanga xam ne ëllëg day Euh, ëllëg day euh, di nga di nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo alku waaye it ku gëm gëstu xam-xamu fiqhee fiqhu ba pare daa di neenal xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf ëllëg itam nee na na nga xam ne ca way rek ngay bokk kon loolu li mu ñuy jàngal mooy dañuy jàngal rek ñu xam ne xam-xamu tasawuf la boo xam ne nit ki bala moo dem di ko gëstu gi war naa fekk mu xam li nga xam ne mooy xam-xamu al fiqh waaye it euh, bu ko xamee ba pare mu doog a euh, sóobu nag yoon wi nga xam ne mooy tax mu mën a gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf te bañ cee neenal benn ci ñaar yooyu waaye nag jiital ci bi nga xam ne moo war a jiitu moo tax mu ne fa waajibun ala al ibadi turra jamuhuma li kay yanaalul ajra moo tax sëriñ bi ne kon war na képp koo xam ne ab jaam nga nga boole ñaari xam-xam yooyu yëpp gëstu ñaari xam-xam yooyu yëpp ba xam ko daal di leen di boole ngir nga mën a am ëllëg yowmal xiyaam li nga xam ne mooy ak pay bu mat sëkk sëkk sëkk goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dina la ko fay ci euh, jëf yi nga xam ne moom nga doon jëf ndax ñaari xam-xam yooyu boo ko boolee di nga xam li nga xam ne moom ngay jëfee waaye dinga ko teg ci ak sell gu mat sëkk sëkk sëkk. mu wax ne wa man tafaqaha bila tasawufin fa zu tafassuqin sarihin faarifi sëriñ bi ne képp koo xam ne day gëstu nga xam-xamu tafaqu mooy fiqh euh, te gëstuwoo li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf sëriñ bi ne na xam ne boroomu caay-caay nga ne na ku gëstu xam-xamu fiqh rek yem ca bañ a gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf na nga xam ne euh, te bañ koo gëstu dong wala weddi ko dong moo tax nga nga bañ koo gëssu euh, waaye am nga euh, yitte man koo gëstu te am nga jot di waaye lànk ne doo ko gëstu rek moo tax nga def ko kon yow dafa mel ni li nga xam ne moo di ak sellal moom nga bañ a gëstu waaye bañ caa dox jëm kon sëriñ bi ne na kooku boroomu caay-caay dëgg la moo tax mu ne waman yakun bi aksihi za za za fa innahu ila tazanduqin maalu sa'nahu nee na képp koo xam ne nag safaan ba nga def mooy xam-xamu tasawuf nga jiital dem di ko gëstu ji bàyyi fële xam-xamu fiqh ne ñoru la na nga xam ne euh, fañ la yóbbu de mooy boroom ak zindiix rek nga te zindiix mooy kan mooy ki nga xam ne day feeñal lislaam di nëbb ak kéefar ci biiram di nëbb ak kéefar euh, ci biiram kon loolu li muy mooy ñaari xam-xam yooyu euh, ñaari xam-xam la yoo xam ne nit ki warut cee yittewoo benn bàyyi ba ca des waaye nit ki war naa fexey ba góorgóorlu ci euh, ba am lu mu ci yóbbuloo waaye ba xam ci li nga xam ne moom lay islaaxe euh, faraidul nam mooy farataay jëmmam waaye nag jiital fiq fiq ga mooy li nga xam ne mooy xam-xamu fiq gi nga xam ne moo lay teg ci yoon ngir nga mën a xam ni ngay jaamoo suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi nee na jiital loolu moom mooy li nga xam ne moo war bala ngaa gëstu li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf kon ñaari xam-xam yu ama am solo la yu nit ki war a bàyyi xel ñuy tuub bu baax tey jéggulu di wàcc foofu suñ kàddu di wax ni in uridu illa lislaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey